existe na comme que existé na nag moo tax man dama jàpp ni criminalisation bi lu mën a nekk la maintenant qui est Ousmane Sonko dans tout ça c'est le premier ministre ce n'est pas lui qui légifère donc mais y a la volonté mais ma rek mais ma rek maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw Diomaye comme Sonko légiféré wuñ waaw ñoom ils sont pas les législateurs mën nañ nag am projet de loi assemblée nationale voté ko mais bul fàtte postulat de départ am que moom dafa am réserve moom dafa am réserve

mais dama naan fi benn bés bi man dama ci d'accord man dama man dama ci d'accordul ci réserve bi léegi ñun taskatu xibaar yi léegi nag taskatu xibaar yi loo loo ci yow pour pour prouver encore une fois que ni mais mais mais mais mais condamné wuñ ko Sénégal code de la presse bu bees bi waaw dañ ci bind na la ci orientation sexuelle ah. kenn du ci wax article 18 waaw il faut le combattre cet article là article 18 bi daf leen bañ yéen yi ngeen dénoncé ko ñu ngi koy wax fii waaw man dama koy dénoncé waaw Ousmane suñu ñëwee ci nguur gi dinañ ko criminaliser posé maa ko posé hmm. boo ko dénoncé. Hmm. correct euh, ne la violé nga ko maa ngi dénoncé góor jigéen ñu koy wax homosexualité. très bien mais de depuis deux mille dix huit maa ngi yuuxu loolu. Ah. da dañ ko war a di man moom dama ko dul sax respecté faf merci xam map map wat la maa gàddu xam naa lu wat. ma may ma ma wax li yow. may ma ma wax li yow. may ma Sénégal may ma na ko ret ñëw Codet Codet sax dax mu boo amee boo amee boo amee majorité assemblée nationale nga criminaliser ko wax jeex bàyyi sa boo amee majorité assemblée nationale nga dugal fa projet de loi buy criminaliser góor jigéen ci euh, sa sa député yi dañ koy voté mën nañ ko voté ñoom ñëpp léegi yow yow da ngay gis da ngay gis benn député ci assemblée nationale bii nii mm. koo xam ne mën naa taxaw ne déet du ko voté da ko gis gis nga ko yow kii. laayam laayam yi naan. waaw ñu wax ñoom bu ñu ñëwee bu ñu amee bu ñu amee majorité. ils sont toujours minoritaires ah à l'Assemblée nationale. ñu amee majorité laa wax parce que ah, du loolu du léegi de. Euh, euh, d'accord naa oui passant dama. mais dama am impression ni soit dañoo fàtte ñun ñëpp. Hmm. wala dañoo xaw a réer. fàttali nu. wala nga gindi nu assemblée nationale. amoon na fi benn période ànd sàmm jikko yi di dem pour que ñu def proposition de loi pour criminaliser. waa APR ñoo bañ. loolu dañ ko fàtte benn ñaareel ba yaa ngi wax président Macky Sall euh, Pa Moussa foofu je relativise li Ousmane Sonko wax. moo ëpp doole li Macky Sall wax face à l'homosexualité naka le président Macky Sall a tenu le propos à deux reprises benn bi je vais mettre Justin Trudeau du Canada ak Barack Obama ci même sacoche bi en Obama quand il est venu ici président bi def ko ne <laughs> nous ne sommes pas encore prêts c'était pas la réponse nous ne serons jamais prêts moo réponse bi Aliou kenn du naa ne càmmoñ il a dit nous ne sommes pas encore prêts c'est comme si da nga naan bon on doit être prêt maara day um si yàlla buñ ci pare beneen bi. Hmm. benn règle bi face. bi la. on va on va le gérer on va le te plaît. excuse bi non garaawul beneen bi. bi Pape Moussa di wax itélé c'est face à Audrey Pulvar. la journaliste. Mm-hmm. Audrey a posé et a insisté malheureusement cahier de charge la calendrier la loolu moom moom c'est c'est c'est c'est devenu purement étatique cette question là. sax l'a relevé sànq ci discours et dans le discours de monsieur Sonko ce que j'ai entendu le premier ministre mais le chef du parti Pastef Aliou je ne suis pas d'accord. on va le non non je ne suis pas d'accord de baal ma expliquer la. la chose est claire. li li li li li li li nga xam ni moo nekk effectivement il avait dit dañ dañ ko bu ñu yéegee dañ koy criminaliser mais Aliou tu es à un mois trois semaines. 44 jours. barewul. waaw non xaaral un mois 14 jours si tu veux kii di kii wax 44 jours un mois 14 jours un mois 14 jours matagul sax un mois 15 jours il y de choses yoo xam ni les gens veulent tout oui il faut oui yéen a ko waxoon yéen a ko waxoon oui il faut y arriver. oui oui mais il faut attendre d'y arriver. je n'ai pas dit ça y avait Jean-Luc Mélenchon qui défend l'homosexualité nee na ñu may leen jàmm moom daf ko war a tontu ne ko on va respecter notre engagement parce que bi ñu nekk ci opposition. non non non atta Aliou la réponse déglu ma wax. parce avec une majorité à l'Assemblée nationale on va respecter notre engagement en criminalisant l'homosexualité c'est ça. ba ba ma wax. da ngeen bëgg a défendre waaw wax bi simple na la nga wax respecté na ma ko dama la xam ne la effectivement il avait dit que ils allaient criminaliser step la by step. oui oui mais pourquoi dire à Mélenchon oui on va criminaliser waaye. non quel bon ah, non non je. Mélenchon daf ci wax nga tontu ko. waaw non may ma ma wax. nga ne ko ñun lii mooy. la la réponse elle est simple Aliou euh, Aliou. la réponse elle était purement correcte. mooy lan on déglu ma daf la ne. ñun fii suñu dëkk yi. góor jigéen am na fi góor jigéen boobu ñun ci suñu société dañuy am xew góor jigéen ba ne fa yor bongo di tàccoo ko fecc ko way bàjjan yaay tànt di ree naan ay yow kii dafa dafa xoromu rek déglu ma wax la Aliou ci xel ce ne pas pour autant qu'on l'accepte benn ñu góor ña ne ci xew ba daj waa Aliou dëgg waa Aliou please ay Aliou Aliou ada daawaay waaye Aliou waaye Aliou Aliou Aliou Aliou ana da ah, déglu ma waaw mais arrête de couper d'entrecouper sa quand tu entrecoupes si day métti wax nga déglu nañ la déglu ok jëlal peex jëlal peex peex mooy noyyi jël da nga waa ji dafa waaw may ma ma wax waaw Aliou fi lañ may ma ay waay ci léegi. di ngeen ko wax de. waaw may ma wax waaw mu daaneel ñu dem Aliou. Aliou la ma déglu la ma la wax xam nga man uy xullil Aliou waa xulliwul nag boo ko xulliloo wax ay waay noppi leen wax ñu daaneel ñibbi ayca Aliou kenn xulliwul dama la bëgg a expliquer benn simple lu simple man frégeew ma ñente ci wax ma xalaata bopp la ma gëm la ma wax calculé wu ma benn doomu aadama bu sama borom. waa waa d'accord mais bàyyi ma wax dama la wax ni la la chose elle est simple Pape Ousmane you disturb me please. waaw jàppale leen ñu yéen tamit. quand même jàppale ñu quoi. wala ma noppi nga tëj émission bi. demal ah, on man. demal ah. damay wax benn affaire bu simple Seydina Alioune ak sa tur bu sell bi <laughs> respecté naa effectivement Ousmane Sonko avait dit bu ñu yëg dañu kaa criminaliser. engrais hmm. door a yëg daa dem ba àgg sa. Hmm. ba sa àggee u jël décision baa demee neneen nag ñu daal ne ah waxul woon loolu loolu egg goo sa Mélenchon il vient. fa ma déparé woon man la ma la waxoon la ma gëm ne la ñoom ñëpp wóoluwuma leen parce que dañuy wër ndoom dañu aay ka nga xam ni gëm na loolu Charles Michel bi ñu doon wax du góor jigéen du borom ñaari tur waaye ay xaritam ba ñuy takkante dem na ca takk ba ne c'est mon ami ñoom loolu la na Ousmane Sonko lui a dit yéen vos réalités la ngeen gëm. moo tax yéen ngeen empêché ma par tey par exemple ma war a mën a ñëw ak sama ñaari soxna yéen seen loi nanguwu ko ñun tamit suñu règle suñu loi na li mu wax c'est clair. alakum diinukum waliya diin mais y a la chose.

Aliou bés bu ñu amee possibilité. Aliou voté ko assemblée nationale. Aliou léegi nii amuñu majorité. Aliou bés bu ñu amee possibilité bi ñun dinañ respecter suñu engagement parce que suñu engagement moo doon ñu criminaliser ko. ce n'est pas à qu'il faut dire cela c'est au Sénégalais qu'il faut dire. lañ leen waxoon. ñu ngi si ba tey daañu ko def non déglu ma Aliou il faut nga ak xel. lan nga xam ni da bëgg a dégg Aliou da xam ni. wax ak dégg may leen ko lanu lanu waxoon. lanu waxoon Sénégalais yi. wuy ma wax ak tontu wax ak tontu tontu tontu Aliou la ñu waxoon Sénégalais yi. différence ak Macky Sall. biñ leen ne daanu criminaliser egg nañ ci nag projet de loi bi jib na wala proposition de loi bi jóge na ci waa Pastef yenn ci assemblée. waaw non waaw waaw d'accord nag munoo nag munoo nag munoo nag tulli talmbat cool ndeer ak bongo mun sa ne ak bongoog leneen ak leneen comme ñebe si cin la li ma déglu man laa wax c'est clair c'est limpide et ça peut la une de tous les journaux occidentaux demain ou après-demain wala même ci toile bi. Mhm. parce que loolu moom dafa leen na soxal soxal. est-ce que xam nga en deux mille vingt et un vingt deux vingt trois bi qu'est-ce que la Russie a fait. Russie bi nit ñi bi ñi fumier ah. ñi nga xam dañuy maanaam bëgguñu dégg Russie te ànd ak France ci pet naan non non ñun dañu jox suñu bopp kenn te ànd ak France ci suuf. discours wuy ma xam nga lan la Russie def. c'est le seul pays eurasiatique <laughs> qui a dit écorcé. l'homosexualité ne leen xale yi sax dootu leen jàngal se du ngeen leen jàngal sexualité ci suñu école yi comme ni ngeen di def quand un pays fait ça comparativement ak ñii te les trois religions révélées wax loolu moo tax ma am confiance ci ñoom wuteeg ñi nga xam ne waa ba jiiba lañu ñëw daal ne défendre nañu ba pare taxaw naan ànd nañ ca. d'accord non la réponse est claire et encore Aliou moo répété la ko. à Mélenchon à Mélenchon ñun suñu réalité du loolu il faut ngeen respecter que accepter que j'ai écouté le discours. waaw non ñi ñi ñi fi nekk ay sénégalais lañu Aliou. ñi fi nekk ay sénégale lañu. criminalisation ba. à date échue la ma gëm. dana dem ci assemblée ba. nu voté ko naka waa APR bañee woon voté. Hmm. bu boobaa ñi fi ne. voté ko et encore que encore que encore que kilifa. kilifa encore que encore que xuy ma. Hmm. am na ñu fi jàppoon ci jàkk yi. ñuy def naka sudul noonu ak keneen ak keneen. loolu kañ ca jàpp. bu ñu criminaliser fa nga jëm xam nga ko encore que ce pays Sénégal bu ñu demee bay débattre waaw non bàyyil bu ñuy dem bay débattre ci mbir mi ak fi Sénégal toll ci wàllu tekki tubaab yi di ñu indil toujours moo tax man seen dara safuma saa yu ñu ñëwee rek ñuux ñu dara ak nu mënti ñëwee dina ñëw nekk gain dina ñëw nekk leneen hmm. mais noonu daf ñu dugal ñu dara. finalité bi mooy LGBT. et et hélas li may wax ne ñoom ñëpp wóoluma leen. finalité baa ngi nii. d' accord alors. Hmm. Euh, euh, euh, Paasan nee na buñ ko criminaliser ñi ñuy jàpp war leen tëj perpète ci prison yi leen jëm. wax ji mooy bu ñu demee ci prison yi. nu ñuy def non c'est coercitif et dissuasif parce que sa njaboot Sénégal ñu dañoo yor ay doom yor ay sët. il faut que ñu xam ne que c'est prohibé xam ne que suñu dund warul dem ci sens boobu. bu njëkk da nga daan toog bu ñu la nee koñ bi dafa am góor jigéen xam nga luy xew. nukaan ndiiraan. waaw day génn koñ bi. léegi pas ça donc faut arrêter waaw léegi du débat quoi c'est un débat à bannir. léegi waaw bay moo yow tax. def naa lu ëpp loolu dama kaa mënul wax rek. am na booy bu génn lépp di toog mais ma benn affaire Pape Ousmane ma cité fenn. bu demee benn ah non non Pape benn affaire oui kii te benn affaire am na Cheikh Oumar benn affaire am na. yaa ngi naan bu demee ca prison ba am na fa maar day um si mais ma wax la benn affaire. Hmm. danga may may nag foofu. donc euh, yàlla sunu borom. Hmm. daa may jigéen la foor. lu yàlla def ci jigéen. oh. li yàlla may jigéen li teraanga bi jigéen am. dañoo xam jigéen ñu jigéen baaxee ci góor. ñu jigéen neexee ci góor. ñu oh, oh, oh, jigéen amee cër ci góor. ñu eh, jigéen jekkee ci góor. ka doon góor la